asalaamaaleykum mbokku internetu info réew mi ah, tey nag ñu ñëw ak yéen ci xibaar bu tiis xibaar bu naqari parce que képp yaa fan sa daaray Kocc tey am nga lu la naqari képp kuy artiste tey am nga lu la naqari muy génn ko adduna ki nga xamante ne ni ah, mooy moom Modou Diagne suñu nee Modou Diagne nag suñu xel yëpp war a dem ci ki nga xamante ne ni mooy Demby suñu xel yëpp war a dem ci ki nga xamante ne mooy Pène mu doonoon ñett ñoo xamante ne ñoo ngi nekkoon Sénégal ah, di ñu bégal ci biir daaray Kocc tey nag ñu. yëkk génn ko àdduna di Modou Diagne bu nu fàttalikoo temps yi la ca ginnaaw moom moomu di Modou Diagne génnoon na ci internet bi di wax que ni dafa am ñaari tànk yu ko sonal benn bi c'était en 2002 beneen bi c'était en 2015 muy ñaari tànk yoo xamante ne nii sonaloon na ko ñu ko doon dégg que ni am do ki nga xamante ne ni mooy ah, sëñ Abdou Karim Mbacké fajoon na ko parce que tànk yooyu lee da doon génn ay sax ginnaaw naka ba mu demee ci ki nga xamante ne mooy sëñ Abdou Karim Mbacké ci la ne ko tànk yi euh, dootul génnati sax mais mu tànk yi woon loolu sonal ko ba li nga xamante ne ni uh, moom moo ko yóbbu tey tey nag uh, du ñu def lu dul di ko jaale waa Sénégal di ko jaale waa Daaray Kocc di ko jaale uh, bépp artist jërë ngeen jëf